yëkkati ba mu boo yeggee boo gisee arrivé bi nga def prestation te nga maanaam comme da ngay modifier titre comme ñi am na sànq prestation day xaar yàggati

Yeah, yeah. Yeah. يا

وطن دكار جاي بس بايس باي بايس ورمي لا اله الا الله كندو خليفه باي ورمي الدين وهدا عالبوي بيزي سام باي نار خليفه يا دمجا عالبوي

Por favor, Deus

Oh. sama mbos sare yaay yaay yaay muy ray ray mel ni or ni mu ñëw nepp li ko sama maam mun ma bokk na ci gàtt xel boo tëddee guddi loo gënti nepp li ko te xir la naay ni dala seen xaraam yi bëtul bëtul wuji bëtul malaay ni dobeneen yoo waaw ñoo ngi jaajëfal ñëpp waay rawatina mu taxam li nga sant Serigne Mansour abu naa ni sa participation matal nga ko sa soppi yëpp bëgg nañu ndax lii fa tabaarakallaahu lañ doon siñu ci yow oto ju woo la pour nga participer ki nga xam ne moom war a dugg léegi nag mooy njabootu Seexul Xadim ala njabootu Seexul Xadim yi seen soppe alaaji Makumba Ñaŋ la ñuy jox moom it mu jël dugg def participation waaye ñu ngi nuyu suñu kilifa suñu sëriñ oustaz Assane Fall imam dañ koy jox wàccu waayam moom du tàyyi ci diine ji lu nit xew la rek mi ngi ci kon Fall yàlla yàlla defal la jàmm lool sa sutura bàyyi la suñu biir ndax suñu sang kon su ko defee El Hadj Malcouma Niang moom la ñu fas yéene mu dugg léegi ak groupe suñu bokk laayeen yi ñëw nañu ñoom tam ñu ngi fi tabarakallaahu Aliou Ndiaye soppe bi ñëpp ñëw nañ yaayam yi nga xam ne ñoo dëkk Njaañeen nga xam ne ñoom dañoo fete ak ba ñëpp xam ni Alioune Ndiaye Alioune Njaañeen la kon soxna Nabou Diagne ak ñi mu àndal ñëpp ñu ngi leen jox seen nuyoo di leen ziar léegi nag dañuy jox Alaaji Makumba bu ko defee mu def participation ci guddi gi Alaaji Makumba bisimilah. de rahmaani rahim jërëjëf ñëpp maa ngi leen siyaare bu baax a baax di nuyu suñu imaam bi toog imaam Fall ñu ngi lay bu baax mbay jërëjëf yàlla dafa dogal nag Aliou Ndiaye ñu dëkk muy suñu doom di suñu rakk waaye muy xale bu baax nag li mu wax li mën a wax ci moom bari na lool baaxam moo tax mu taxawal guddi gi bàyyi nu xel jox na ci cër te cër yàlla moo koy joxe cër yàlla moo koy joxe te ku na xam na sama jëmm xam ni ma demee ci sëriñ bi xam ni ma demee ci réew mi moo waral mu taxawal guddi gi boole lu ci noo ngi ñaan nag ci daraja yonent bi li mu ci bëgg yàlla ku fi teew yàlla yàlla faj say xaajo yàlla nangu suñu jaamu yàlla yëpp nag muhammadu rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam maa ngi nuyu nag waa koñ bi yëpp nag di nuyu sama goro yi ma dëkkal di nuyu sama bokk yëpp rek koñ bi ku jum ku lim da ngay jum moo ngi siyaare ñëpp di ñaan ci daraja yonent bi yàlla yàlla nangu sunu koor barke rasulillah wali wa nabi بالمكس وزمان لأسى بمن خلبه أواه ويملاه أسعد من خلقه ما هو يبلغ جمعك إلى إرداء الزمان أبي خائد الله سرى رمته ينتهي بالمدح المجروح يا إرداء الزمان نبي خائد الله سرى رمته ينتهي يأتي مضرما بالمد أيما تدر سحب النوام لا في خيركم لمن ليس يبرح إما تدر سحب النوام لا في خيركم ليس يبرأ جلبك أمانه إلى جهة وخلقها والكل جزاء بلاه إلهك قضينا وقد وخلقها والكل جزاء دمك زول على لهنا مزابيهم في دجاه وكل سجى عمره ذي الكفر والزوال صار على الأداء مذاهب في البداية وكل سجى أمره ذي الكفر والزوال المقصود المتي يصير يوم سوف يكون المالك والمحا تجرها صادر متي

ينسهم فالمهار هم ادخل المخدر يا صاحب المختار لا تنسى سهمهم ينسهم فالمهار هم ادخل المخدر

بيتك من رسول الله يخيخ النبي الماء ساقر بالمدى أبا أسر الفراء بسرواه نادر بيس سبيل الماء سبا اسم زهنها أبا أسر الفراء أبا نادر الله بيس سبيل الماء دمك أفيسا بمن دعا إنا فانس الآيات لأنه رسول الله ونحم المبلغ أفيسا بمن دعا نعوذ ما أمر مران لأنه رسول الله ونحم المبلغ

ونقف من جرها هي الموتى ردمها في الأيدرة إدرة مدرائك وفده ونعم المجرى يلمك أصاب رسول الله إني خديمها رهيبا لكم في الله والله يقنعها صاب رسول الله إني خطيئها وإذا لكم في الله والله يقلق لكم بالله والله يبله أصحاب رسول الله إني خديمة محبا لكم في الله والله الله إنه من يحب الله نعم المهيمن أن الميل أما الكير ولا بغمن نبس الأخاء لمولاي وده قديما لمن عن دركه كان كنسنه نزت بنا عن من بلا قنابها بفرد على خلق ولا أنه بينه بيت دما ما شكر وسكر خادما لخير ولا نحم الأسير مسيد نبي رسول خير من وسيد خليل حبيب مثله ليس يولده نبي رسول الخادم زي هلا ما مريضنا لا ليس يهمنا أبو سالم خلاقي وسيد خليل أبيب مصطفى ليس يغنى نجي خريب ساكن وهو ساكن جواد كريم بالمكارم يحسنه نقي تقي سالف وهو مسلم نذير لمن لله بالعزيز نور نبينا ديب فعياء مؤسب نسر لمن بالكفر وزكي علمه نسر باكسين عليم علمه سخي براما كلاما يغيره نسر باكسين عليم علمه سخي براما كلاما يغيره من كرامة يليلو نجيب عجيب ناسب وهو ناسك هو الآمر نائي الذي خير يؤمن نقيب نقيب مسجيب مسسب مسيء مراسل وهو ماء وموسم نسيب أسيب سعد يا مخدم هو ناس الميزان هم المنكب لك الفضل يا مختار يا سيدنا عليك سلام الله يا من مهاز Mouhamadou Fadilou kii mooy fal fale tey ku ko neex mu fal la ngay fale bàyyi sama maam Fatim Mbacke mooy fal fale tey ku ko neex mu fale nañu fale ki mooy sa ibul kamala a dem fa daa ilu maa lam nihi ahadu ku dem fa moom xam ne kii mooy sa ibul fudala sëriñ Fallou Rana mboolem ñi siyaar ci wàllu gone Cheikh Fallou Rana mboolem ñi siyaar ci wàllu gone soo daane bee daane sëriñ naari laajte na la maamam sërif la bum sëriful sëriful bum sëriful sëriful tuuma diglu la du xool ki saati du des yaakaar du dee ku ko laaj rek ma ne ngi ngi ñu Cheikh Fallou xam yu leer ana Mouhamadou Mokhtar maa la ko way yow Cheikh na Fadul yaa moom yafi may na ci laa law laa ka si Cheikh Fallou law laa ka si Cheikh Fallou law laa ka si Cheikh Fallou xew ni walwalu ko bon walwalaate dama may Cheikh na fadala fadlul asimun sarifun farisun fatilun mbakken bu soobera mbakken bu soobera mbakken mel kii mooy ñu tëral si la loolu ni xewani maam dootu jeex am na ku sopp Seex Fallu ku sopp Seex Fallu ku sopp Seex Fallu xewal lor la lor na dora te wi la mën a daa Seex Fallu fii abadin xëy na mën a daa tànneef xam na nu la lakin Fallu yaa muxtaar مخاصنا كثيرا لا يريد مسليا على الكريم خير ولا للمنعم في نبي اذكر زار ارز المجيد مسليا مسليا على الوهاب بكل كلمه كلمه الرحمة في الخلق ووفاك واللماس في نبي لا ختام دائما بما يفيد ماليا وخادمي أخرجيا سادا لما يلترم قل ما جاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر سيالا بالمنتهى المكرم في نبي غيم سبا امتداح كل ربط من المكلا رسول الرحمة بلا خبار نقمة سما بكل نسمة سنبي وسلم يا زمن على نبي محمد وعليه وارحمنا وكل ستر سماء في نبي وأن يخوض النبي في أبد من الخبا سلام مخربا أبي ah, وأن maa ngi nuyu sëñ Modou Garas Mbaye sama rakk di ko baax Alioune jërëjëf Dieye yal na yàlla guddal sa fan lii nga yàgg ko def ñu ngi nuyu bu baax chef de quartier Alhaji Ibrahima Dieye ak waa kër Paa Wee Seng sama kër gii ma dëkkati maa ngi nuyu bàjjen Ami Faye di nuyu Ajaratu Ndey Ngom ak ajaratu ndey faama ñoom ñëpp rek baab siidi bàyyi lamin yal na yàlla guddal fan ñëpp ci daraja yonent ci barkeb Sëriñ Tuubaa maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Alioune mbay jërëjëf jërëjëf jërëjëf Dieye dafa mel ni maa kumba fi ngay daanele fi la suñu rak muy parrain bii nga xam ni moom la ñoom Mamboor Diagne di dugg seen léegi ànd ak délégation mu mel ni lii nga xam ni moom nga fi wax léegi dafa naa ni lii Sëriñ Tuubaa wax ni yaa kitaaban karimu anta habibi dafa naa ni loolu rek lañ ci war a teg ndax moom dafa tànnoon téere boobu ni mooy xaritam kon lii nga fi wax ki ñu fas yéene dugal mooy kan damay jox sama jarbaat Cheikh Omar mu dugal ko ndax kooku ne xam na ne bu jàngee alxuraan léegi ah xol yëpp dina sedd kooku mooy kan Cheikh Omar waaw Pambay kon mbokk yi asalaamaaleykum comme ni ko Pambay waxee rek kooku mooy Makhtar Dieye ndax soo xoolee al quran mooy inna al qurana huwa al mizaanu tahrifu mi huma hawayta min al aswaaxi wa salami fa tabaraka kon Makhtar Dieye nga ñëw yéeg insha allahu taala jàngal ñu al quran ñu teewlu ko nag ndax al quran àndul ak yanni fa tabaraka fa la ñuy jaaree rek waale imam Assane bu baax kon Moxtaar. Moxtaar bu ko joxee ñu ngi xaar ki nga xam ne moo fi indi ñëpp muy sëñ Aliou Dieng te Aliou dafa ko première participation ah annoncé nañ monsieur le maire mi ci yoon bi di ñëw bu Cheikh Ahmadou Bamba Fall mi nga xam ni fa moom bu ñëwee rek ku ne xam ne mooy borom Medina nag ndax day soppe Aliou di magam de xaritam kon sëñ Aliou fa tabarakalla dañ ko alaaj Maxtaar bu yëkkati suul bu am ma bu defee ñu jox ko Maxtaar bismillah tafaddal هي السورة التي نجى الله من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 الرحمن الرحيم ملك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن صحبة أو إقام بسم jàng sell na jàngin mi neex na boo defee ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla dolli la dëgëral mel ni ñu war a dugg si léegi muy soppee Aline Dieye di ay yaayam ndax Aline ku ko xam xam nga ci xam nga ci regroupement bi nga xam ni ñoo nekk fi sanc bi soxna Nabou Diagne doon seen njiit ñoom nag ñu doom ñu doon ay ndeyu Aline kon su ko defee ñoom la ñuy dugal léegi ñu jox Seyna Aline ndax soppeem yëpp bi ñu dogoo ba léegi moom la ñuy xaar bu ko defee mu de première participation ci guddi gi kon soxna yi bu ñu leen dugalee sëñ Aline mën a yëkkati moom it doxal ne ñu wax ni ñu ngi leen dalal jàmm ñu egsi nañu egsi soxna yi nañu egsi soxna Nabou ak délégation bi mu àndal yëpp waa Njaañeen mu yaayu Aline Dieye ñu ngi leen di wax ngeen dal si egsi ak jàmm ndax seen soppee seen doom la ñuy dalal bu defee mu def participation kon bisimilah waaye daal ñu ngi sant bu baax Maxtaar ndax alquran ji mu jàng xol yëpp tooy na li nga xam ni moom lañu wax léegi bi Makumba Ñaŋ daanelee léegi li ci waroon topp rek alquran la ndax jàng bi mu fi jàng muy jàng nu mag ñi ku ci nekk xel yi demoon nañ suñu waajur wa Alaaji Ablaye Ñaŋ mu yëkkati daaj daaj bi mu fi daaj léegi xol yëpp sedd kon moom tam ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla doole dëgëral ndax sag la ci Medina fu mu yëkkatee rek jullit yëpp danañ bëgg kon nag ñu ngi koy ñaanal moom tamit wér su ko defee ñii di dugg si muy waa Njaañeen seen càmmiñ dugg na léegi muy alaaji Mamboor Diagne ànd ak délégation ay jigéenam ñëw nii fekk si ko ci biir mbooloo mi muy lu rëy ndax ku ne xam ne ni Alioune dafa am fu mu féetale boppam dafa féete la boppam waa Njaañeen waa Njaañeen féete woo ko ba ñëpp xam kon ñoom suñu defee délégation ñëw ah wax dëgg yàlla dañ leen dalal soxna Nabu mooy dugg si noonu ak waa Njaañeen yépp di leen dalal jàmm di wax ne bis bi seen bis la ndax ñoom bi dara doonul dara la ñu ànd ak ànd bu rafet jàppale Aline nag def ko seen doomu bopp lu ñu xewle ci programme jox ko Alioune ni ko yow yaay suñu doom lu ñu jéggaale benn yoon kon bu ñëwee mu jagleel leen bis ñoom ñu ñëw ak forte délégation ah tabarkalla macha allah. Adja Ndeye Niass suñu rakk mi ngi noonu moom tamit di rakk ju baax ànd ak délégation Nabou Diagne ñu ngi koy sant di ko gërëm Adja Juma Sow. ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn kon sa bàyyi la ñëw Adja Ndeye Diagne gis nañ délégation bi bis na yàlla a yàlla fay léegi nag dañu fas yéene yëkkati jotaay bi jox ko ki ñëpp di xaar. am lu diis loo dugal ci grand moom. moom la soppe yëpp doon déglu sànq ba léegi muy kan Alioune Ndiaye ndax ah bi muy dugg si léegi nag dafa am keneen kuy dugg si muy kan. muy kan muy monsieur le maire mi nga xam ni a tabaarkallaaw kuy tànt ku ne moom day xaar ndax liggéeyam bu rëy ci Médina ni ma koy waxe rek ku bañ liggéey bi mu def sa tànk bu ko teg ci kaw Médina ndax foo teg sa tànk rek moo ko defal foo teg sa tànk rek liggéeyam taxaw na kon kooku suy dugg si ah mbooloo mi ñëpp danañ ko accueillir mu dugg si ma ànd ak bu mag bis bii nag biñ ko defee xel yëpp ci moom lañ jëm waaye moom de soo fa tolul kenn ku xewle rek bamba ci gën ku xewle moo ci njëkk ci alalam moo ci njëkk ci dooleem tàmbale commencement ba fin kon kooku moo dugg ci léegi monsieur Amadou Bamba Fall ànd ak bu mag boo xam ni ku ne xam na ni moom mii aline day alinam moom Alioune Gueye du fëgg buntu Bamba Fall mukk ñu naan ko yemal fii saa yu soxlaa mu le maire ah fa tabaarakallaahu amul intermédiaire kon nag mi ngi dugg si léegi dañ doon bëgg a jox Alioune mu def participation kon dafa mel ni Alioune yaay dawal sa mag sa nijaay monsieur le maire mu dugg si nga bëggal ko bëggal soppe yëpp Alioune Gueye bisimilah kàddu ko la jëm fajar jotagul fajar la jëm fajar jotagul fajar la jëm fajar jotagul fajar la jëm fajar la jëm fajar la jëm fajar la jëm fajar la jëm fajar la jëm. mbooloo mi ñu baal ñu tuuti rek fii fii tuuti nag ñu baal ñu kilifa yi toog ñu baal ñu tuuti ñu baal àll àll. dama bëgg nag ñu baal ñu tuuti. ndax kilifa gi du ñëw toog ñu jaar ci kanamam ndax fii dañ ko organiser ba ay ñi nga xam ne ñooy yor organisation bi yëpp taxaw ci kanam kon du rafet suñu kilifa ñëw taxaw ñu jaabante ci kanamam loolu du lu ñu gënal bëggoon nañ ku ci nekk rek jël sa place photographie tam ku jël pose ba pare bëgg nañ nga dem toog may ñu ndax dañuy fas yéene continuer programme bi ndax programme bi kii ñëw léegi dafa jagal bis bi lépp lu mu war a doxal bis mu def ko fa tabarakallahu léegi ñu ngi may déy ni Cheikh Ahmad Tidiane ba tam ñëw na ci bëccëg doxal lu mu war a doxal kon su ko defee dañuy jox sëñ Alil mu jël yëkkati bigal góor ñëpp ndax moo téye ñëpp sànq ba léegi البدر علينا من شأني يات الوداع وجبا شكر علينا ما دعا لله

شنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله هداية وتلا القدر علينا بشلم مرسي علينا شنيات الوداع سفينة لتبت أمر المتعب جئت سواد المدينة مرغبا يا غير داعي وتلا عمد القدر عليك من شديات الوعد وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالله عابدنا تلا البدر عليه منور بشنيات شكر عليه ربي فانقلوها من زينيات ودا تلا البدر

الجاد والخلد ومدينا بالوجود البدر ذي الخدم نبرنا وصلنا وجزي معه وأن محمدا المختار في الحين سيدي خير الإيجاد والقدم مبدنا بوجود البدر ذي القدم ومرنا وصلنا

يونت بإن العوالم عالي وصابلا أسيرة تلعب من أبدل تسير إلى وصلي يا إله يجزي أنا أبدا وما أن محمدا أنا ci sopp yonent def ni innal awaalima aliha wa saamina وشيعة تلعب من أفضل خلقه وصلي يا إلهي وجزي محمد أنا مختار في وجهي إن الخداع الله محبوبكم خرج زد فزيد وزيد دون ما وصلي يا إله وجزيلا وما جاء محمدنا والكرم على جمال الدين tudd xaami baati baati Alaaji Maalik ne الفضل لدورتي كل بدر مستوى الفوق وصلي يا إله waaye ci sopp yéen ci bi ne nii. يغلل المساكين يغلل المساكين دنياها وأخراها gën a bëgg Seydina Muhammad gën a bëgg Seydina Muhammad waaw kay balaa may yëkkati way ma baal ma rek ma sànni ñaari kàddu rek yeggali ko bu soobee yàlla pare na man damay wax sax ña may sarax lii yàlla leen du jug seen loxo de bu soobee yàlla ñu baal ma rek maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp waaw di leen ziyaara bu baax da baax rek taman wóoruma woon way heure bi parce que solo gu ma gan yi laa doon recevoir monsieur le maire xam ne lu mel nii laay sol moom tamit mu sol ko xam nga man ak moom tey sax dañu bëggante ñu ngi koy nuyu bu baax di ko wàcce wàccuwaayam waaye di jiital ci nuyoo bi rek imam Assane xam naa dem na waaye mu ngi woon ci mbooloo mi boobu ba léegi mu ngi koy ziyaara bu baax a baax a baax monsieur le maire euh, ñu ngi lay ziyaara waaye ñu ngi ziyaara remercier bu baax am contentement ak satisfaction bu rëy tey ci bëccëg euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñëw na fi ànd fekk ay nit jox ma teraanga bu bëri yàlla na ko yàlla fay ndax nit ku baax la mu ngi dimbali jeunesse Médina ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax li mu def tey rëy na lool ci ñun waaye nag monsieur le maire maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm dama la fekk rue 41 la xaw ma 43 nga recevoir ma fa waxtaan ak man ne ma yow yéex naa la xam ne waaye sama jarbaatu bopp nga am na sax ñu bëggoon am lu ñuy def waaye nga ànd ak dal rek nga mat aussi nekk kilifa xam nga nit bu la defalee lu baax bu mbooloo mi yëpp taxawee nga wax ñi fi ñëw ñëpp defal nañ ma lu baax ndax bàyyi nañ seen temps ñëw waaye moom monsieur le maire tamit defal na ma lu baax dinaa ko wax wax dëgg yàlla ndax baa doolaw ma te du ma goree diw ma it waaw moo ma ko defal wax naa ko Cheikh Ba mi ma ko defal tudd naa ko fi wax naa ko waaye Bamba nag dëgg yàlla dafa dafa dafa def lu rëy rëy rëy ci man yàgg naa woote musuma am lii kon bu ma ko amee man ko si sant bu baax di remercier bu baax daayira soppi Serigne Mansour li fi nekk cat ba cat ñoom la dafa ma si dërëm daayira soppi Serigne Mansour maa leen di remercier amuma seen fay waaye di bëggee sama bàjjen bu baax yi nii toog nga xamante ne wax dëgg yàlla ñoo ma njëkk a teg si taabal ne ma wayal xamuma woon dara li ma lay wax nii dëgg la biñ may teg si taabal di ma wayloo mënuma woon mamboor mii moo jóge woon maa ko yàlla seede na ko kon maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm bu baax koñ bii ma dëkk su booba léegi seen teraanga jugul ci man ëxlu café gi monsieur le maire ñuy cantal mbay jee mbaay incha allahu rabbi la kat muy mardi bii di ñëw bis topp suñu yëfu bopp la ñun ñëpp ñu bëgg nga jàpp ci comme ni nga jàppee ci bis bi bu soobee yàlla te incha allah am na loo xamante ne boobu ba léegi ñu ngi koy dagaan ci sa présence rek ñu ñaan la ko muy ñun ñii di tàgg yonent bi dañu bëgg sonorisation bu mucc ayib bu mel nii nga xamante ne lii ngiraan mi mu ngi jóge ba caaro yi tali kaw xam na ko ah kon ñu ngi la koy dagaan bu baax monsieur le maire kontaan nañu Pape Mbaye paree ko damay way damay way kenn du ma def ah. oh. waaw kay. boo a wax ma tuuti dama am rek cant goo xam ne dafa yëkkatiku jógee ci ki nga xam ni mooy Mame Mor Diagne nga xam ni doonay ndey gi réew la bu ne Mame nag yaa tudd léegi Aliou ni dafa am loo séq ak waa Njaañeen bëgg a jël bis bu toll nii bàyyi ñëpp tànn Mame ak ay jigéenam kon soo defee loolu su Mame Mor ñëwee fii ak ay jigéenam noppi ba nit ñi dem bu ñu demee yedd seen bopp moo tax Mame Mor ci boppam ñëw indi cantam ak ngërëmam nee na yow Aline lu ñu la jàpp rek ndax nag ñaari góor ñoo mën a ànd nit ku nitee moo jar a séqal nee mi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla ndax bi nga duggee seen biir kër ba léegi tabaarkaal da nga leen li su ko defee lii nga xam ne moom la yëkkati jox ko ndey ñas pour ñu jox la ko ak ay jigéenam bëgguñu ko tudd ndax ñoom lu ñu xeeb la bis nag boo ko tuddee nit bàyyi ñëpp bu ñëwee ci bis ba war faa jëf dara looloo nag tax ñu yëkkati lii waaye dañu doon nga wàcc suuf ñu jox la ko waaye ñu ngi lay sant di gërëm bu baax monsieur le maire moom tamit ñëw na wetti leen ndax ku ne xam ne yow ku la jàppale rek ñoom nga jàppale kon nag ñi ngi sant bu baax di la joxaat ah dafa mel ni léegi sëñ Modou Mbacke ah dafa egsi bu Daaru Salaam boo ànd ak rakkam Baye Modou Mbacke mooy doomam ndax kii doomu Abdou Mbacke la di frère kon bu ñëwee toog nii di deret Seexul Xadim su ñëwee fii ñu jox ko wàccuwaayam ndax ñun jaan jaan rek lañ ci xam jaan bu la màttee ngay toppatoo toogu jigéen la wala bu góor booba xamoo li la li nga la màtt dama lugg ji ba noppi toppatoo bu jigéen la wala bu góor su ko defee dañuy ñu baal ñu ñu baal ñu tuuti ñu jox ñu tuuti ñu su ko defee rek ndax dañ ko dalal ki nga xam mooy suñu kilifa su ko defee dañ koy dalal rek moom sëñ Modou Mbacké ndax kenn la si ñun fa inna diina rasulallahi fiihi lana mamado mamado ذل المشاكل دنياها وأخراها كانت نجائب تضرب بذرتها سير الصوارح أدناها وأقصاها إذ يسكنون لها أكرم بظلمتها أكرم بسكنها والصوم ذكر للأيام قبور لهم وفي قبور لهم أهل البرهان وصوم ذكر الله من قبور لهم وفي قبور لهم أهل بزلفان والمصطفى لجميع الخلق waaw bu ko defee dama waroon enchaîner way waaye monsieur le maire nee na may ko mu sànni ñaari kàddu te nag kilifa moom ëpp naa toog di la ñaan nga koy may nga koy bañ may loolu du respect du cër ndax bàyyi na yitteem kenn ku nekk xam na ne monsieur le maire moom xam na te soxla nañu ko ko defee duñ koy bàyyi kàddu gi rek mu dem ci moom directement. jërë ngeen jëf. mbooloo mi maa ngi eh, am mbégte di teew eh, ci guddib tey bi di guddib sant Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. naat sawar a ñëw nag ndax moom sama jëlbaat la. ndaxte way juróom bu jigéen sama wëllëre la woon suma jigéenu bopp la woon kon su ma ñëwee fekk ci waa sante ba surtout waa Njaañeen dama leen di delloo nuyu bu baax a baax ndax ñooñu sama waa kër Baye Aliou Njaañ moo maa ngi leen di ziar di leen nuyu di nuyu ñëpp di ñaanal euh, profité ci occasion bi gannaaw bi ma gërëmee daayira bi yëpp di ko gërëm moom ci boppam di nuyu di gërëm ñi nga jiitu ñu jiitu parce que maa ngi ko doon suivre ci internet bi ci Medina TV avant may ñëw maa ngi doon suivre. macha allah a jiitu ak ñi ci topp ñoom maa ngi leen di jox su ma ñëwee ba fii ci waxtu bi ci weeru koor gi suñu xel dina dellu rek suñu papa yu yeesee yàlla yeesal yërmandeem ci moom. yeesal ko bàyyi Alaaji Naar Mbay. ndaxte bu ko fekkoon kenn du ko fi jiitu. daay wax dëgg sunu bàyyi Tamsir Fa ak Bàcc Pen. wallaay muy ñett mi daanu tàggalikoo te bu leen fi fekkoon kenn du leen fi jiitu. wallaay dëgg yàlla yeesal yërmandeem ci ñoom. kon euh, Mbaye boo mu nga wax tamit sama jarbaat boobu génnoon àdduna Mbaye Guèye Mbaye ñëpp xamoon nañu sëriñ bi nee nañu ku mënoon sonn ci weeru koor la ci joxe ndogu kooku nag ak jëf ju rafet jooju yàlla na ko ko yàlla fay. amiin yaa rabbal yaakaar naa ne boo leen wootee ci moom dinaa ci sawar ndax àdduna lu baax rek a jëra fasal ku baax rek a jëra màggal. kon képp ko fi baax rek loo xew li dañ la màggal. képp ku fi dem safaan ba tamit ñu ñaan la rek nga gaaw da ko def lu baax ndax àdduna yàggul la fay ñaan rek ci réew mi ak ci gox bi bu leen dara taxal xaajalikoo bu dara tax nit ñi xaajalikoo wala ñuy xuloo àdduna daa yàggul te yàlla dafa noppi ba noppi jamono ju nekk la mu ca nar dina ko def dëgg la kon nag ngeen jàpp ni sëñ bi Mbàkke maa ngi lay ziar bu baax a baax yàgg sama doom bi di ziar ñi fi ne ñëpp kon boog ma lay wax ni sama jarbaat nga fi ngeen ko fii la lii la yàlla bëgg ndax mooy mujj cër yi ñu yàlla jox yëpp dafa am mu yem te soriwul ñun cër yi ñu moom dinañ ci jox cër dinañ ñu màggal waaye soriwul ndaxte ñoom seen bopp lépp ci seen loxo lay mujj ndax seen loxo la tàmbali woon ndaxte buñ la nee bu liir di judd ñoom ñoo koy tudd dëgg la bu nit ki di fas ñoom ñoo koy takk bu ñu ki génne àdduna ci seen loxo lay mujj kon ñi nga xam ne ñooy tagg yéen ji wala ñi nit yàlla mbaa imaam yi seen wàccuwaay jaadu nañu leen koy jox jàppale gi ñu ci war yëpp bu neexee yàlla di ngeen ci gis sama loxo bu baax a baax macha allah waaw incha allah bayal jërëjëf jërëjëf Fall jërëjëfati la ñuy wax Fall di la ñaanal rek ah, yàlla bàyyi la suñu kanam ndax yow suñu sag sangam da ko defee dafa am koo xam ni nag danañ ko tudd léegi ndax ku ñu demee ba kon su ko defee dafa am ku doon bëgg a dugal dugal léegi waaye dañuy bàyyi Aline mu wàcce benn woy moo ko dese su ko defee am ku am solo koo xam dafa yónni délégation mu ñëw fii léegi moom lañ doon bëgg a dugal ndax teraanga ji mu jëf daf ko jëf te ñépp fësal ko ba àdduna bépp yëg ko lii bu sottee ba àdduna bépp yëg ko moom la kon kooku dana jaadu ni tudd turam wax ko ni ñëw na am délégation bu mu àndal yëpp Idrissa Diène ba suñu waajur alaaj Baye dem jën teel na ñëw fii dafa mel ni fii sax la ndogo

So

ذاتي وربي قلبي وهي خير شيء وبسائر قدمي

يا ربي Baba, Baba, المتسائلات الغالية وبخير Thank you.

commencé gu ma woy barki Seydil Xaaji Malick woyoo ko ma parce que solo gu solo gu ma sax yére da ngeen baax rek wallaahi solo gu ma dama bëgg yéen ñee ci ginnaaw ngeen ñëw ci kanam da doon wax sànq lu am solo kaf micro Pathé Ndoye Ba caméra yi yéen a jël kenn du moom Pathé Ba kenn du moom defal na ma teraanga bu rëy bu rëy dama seeti nit nanguwuma recevoir billaahi mu tëju si néegam ne day nelaw mu seetaan publicité bi TFM woo ma téléphone loolu grâce à Pathé Ndoye Ba maa ngi koy ziyaara di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla fay parce que nit ku nekk ci li ngay liggéey ci nga mën a dimbalee TFM la nekk defal na ma publicité bi muy jàll nit ñi di ma woo fu nekk numéro mu ma xam ak ku ma xamul Mbaye Ndiaye Pathé Demba Samb Ngóone ku ne woo ma ku woo rek ma recevoir xam ne télé ma def noonu waaw moom nag Bathie Ndoye ba moo ko def yàlla na ko yàlla fay maa ngi du ma du ma bàyyi micro bi xaaral sama yaay nekk waaye dafa am ku ko fi nekk muy Amélie mii mu nekkoon sama xaritu yaay benn bakkeel Amélie daf may fekk sama place may jaay suba teel bu ñëwee day gaare oto bi rek eh, dama jënd li mu mburu am ay client yu ko remarqué ne ma mais yow kii moom bonne autorité la am ba fekk la sa place nga war a jaay mu lay déplacé nga bàyyi fi say client dem di ko jëndali mburu ko sama yaay la ndax bu doon sama yaay la noonu laa koy defee amili maa ngi lay ziar bu baax moo ma njëkk a defal teraanga bu rëy ci bis bii xaaral maa ngi nuyu bu baax sama benn kilifa muy sëriñ Assane Seck di kilifa gu mag lu ne la may defaral ci xeetu baax baax maa ngi koy ziar bu baax bi muy ñëw dafa ma fekk ma nekk ci kaw te mënu ma nekk nag di way di jëli ji loolu moo waral mais sinon bu ma fekkoon suuf maa koy jëli ji ba fii kàddu gi nag benn kàddu moo fi am fu mu nii bàyyi dañuy jox bàyyi mu jottali kàddu Pathé Ndoye Ba bu ko jottalee paaji yu ñëw def remerciement yi ci marraine marraine yi ak parrain yi ok Fallou Diagne international yàlla na teraanga yàgg ci loxoom. moo ko yónnee yàlla na ko yàlla fay ci barke ci yàlla Muhammad waaw ndax yonent bi la ko defal bu ko defee Baye da ngay wax kàddu yi nga xamante ne moom la baatu ndóoy ba yóbbante soo ko waxee ba noppi sunu kilifa gii Modou Galas Mbaye yàgg na fi lool timis ba tey mu ngi fi moom ak ñu muy àndal te du yoon ñu leen fii téye boobu ba tey ñu ngi ko ciy jégalu bu daanelee bu soobee yàlla libaas laayeen ñëw parce que bés bi moo yaatu. moo toll noonu ñëpp xaj nañ ci xam nga nag Alioune Dieye moo international. noonu la demee waaw loolu moom macha allah léegi bu ko defee loolu bu jàllee rek ñu yëg maa ngi leen di ñaan xoolal bu ñëpp demee yéen ngeen topp gën a parce que yéen dama leen ameel àq ñii defal na ñii gàmm dañ ma jox xaalis bu bëri xam nga rek tag na bi waaw dama leen tax wax lu dul dëgg ma dem wuri ji ba sonn way ba sonn sama baat bu dee. ma ñëw imaam attiré di ma xas si mbooloo mi ñoom ñi yokku nañu tax li tax ma organiser ngir bëggal leen kon bu ñëpp demee yéen toog leen man ak yéen tey ba asalaatu xayru mina noonu ñun ñëppay tardé xëdd soobee yàlla ngi nuyu ku nekk turam ak santam tournel tournel tournel ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax fii ma taxaw tey dama fi taxawee benn kàddu mooy ki mu doon wax léegi muy Pathé Ndoye Ba dëkk Médina rue 19 angle 6 di doomu Médina di jarbaatu Ndeye Camara Sega Bass di sët si moom di jarbaatu Sega Bass Camara ma ànd ak fii tey délégation jiital sii naago Diop mii taxaw fii sama wet ak Amadou Ba nga xam ne moo toog bokk ak moom ndey bàyyi paate nag Alioune Dieye wax na ko si jur gi la bokk parce que Médina la dëkk doomu Médina la xam nga dafa fekk koo xam ni bu soxla taxawee du jëm ci Médina si lay xëy si lay gont kon rafet na keroog bi Alioune ñëwee wax ma ne ma dama bëgg gis Pape pour mu programmer ci gàmmam bi dama ne ko Aline kooku amul benn problème damay ànd ak yow ba ci Pape bi yàlla defee ñu def si moom ñu toog mu wax ko parce que lépp luy nit di def visibilité da ci baax te mën naa ne visibilité boobu mu si soxla woon yàlla def na ko parce que à travers moom parcours moom comme ni mu ko waxee ñëpp gisee nañ ko loolu di boole. yëkkati ak li mu mën tekk sama loxo bi su ma ñëwee naa ko jox Alioune Dieye waaw Faata nag di di leen xamal ni man ñu mu yónni may bàyyi ngay dëkk fii ci gox bi bokk ci gox bi Alioune mii war na mën a am lii parce que doomu Médina la mais Paate Ndoye Ba doomu Médina la ci gox bi la bokk ci jur gi la bokk lépp loo xam ne am na fi teew na fi lépp loo xam ne war na ko def mi ngi koy def à travers Médina xale yi ma wër mag ñi ndaw ñi nekkul fi lu dul Médina te wuti ci dara lu dul yàlla tax kooku tey su luy amee mu taxawee ci nii ba mu am visibilité mu dellu yónnu ma man ak rakam ak naagu jóom ñu taxaw pour indi participation loolu nekk na loo xam ne lu rafet la te loolu rek noonu moo taxoon a jóg li ci des nag yàlla na ko yàlla mottal guddi na. Alioune Alioune kaay jël lii àttandoo yónnee kaay jël ko mi ngi nii sama loxo ah bu ko defee dañuy yëkkati nag Modou Galas Mbaye nee enveloppe bii du li mu def rek ci la yam de enveloppe cinquante millions yi pour mu defaat ko ci guddi gi rek pour nga yóbboo ko saisi ah, Modou Galas Mbaye la jox am na 10 000 suñu bokk laayeen yi ñu ngi leen di jégalu ndax dañ doon annoncé woon waaye dañu xam ni ñoom ci lañu ñu bokk fii ñoom Aliou ñoo bokk doon ñu yaru lool njaboot yu tey lool sànq ba léegi ñu toog fii waaye kenn dégguñu def benn buur kon su ko defee ñu ngi leen di ñaan rek li nga xam ni moom lañ leen jox Modou Galas Mbaye la jox am na dix minutes mu yëkkati ko bu ko defee suñu mbokk laay ñu mën a préparé wu pour yéeg kon bànn libaas anamu su ko defee na préparé rek euh, bu ñu Modou Galas daanelee dix minutes am bu kii rek ñoom ñu yéeg ñu barkeelu waaw kon Modou Galas kàddu gaa ngoog. damay damay yëg si waaw.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

وخديمي وسلم تسليما والبلد طيب يخرج نباته باسم ربي وجهت كلي للودود زمدي ذا خدمتي للمصطفى المحمدي وجهت كلي للودود ذمدي خدمتي للمصطفى المحمدي الحمد والشكر مع لله على النبي ولد عبد الله لله بسكر حكيم غير مع النبي ولد عبد المطلب مدد لي سملا عدو الغاسم ربي بجاي مصطفى بن عازمي لي جاد ربي بنوال أنناس بالمنتخى مختار من عبد المناس دعي استجاب بالمغفي ربي يبين مختار من الحسين أصلوا انقلاب ولا خرور بنبي انقلاب لجر بخيري واكفني من الرا ربي بجاي مجبم نمرا طيب واديا برارسان سبل جملة المطالب بالله إساء بن بن بن غالب بدي وسخر كل سمر وكل يوم بن بن فيري يا خيرنا آسر وخير مالك انصر ومالك نيا بالمالك حب غد ويستي ونذري كونك لي فليكن بنذري رد للهدى وليا حب جنانا بالمصطفى مختار من كنانا جدلي بما به أنير خيرا وخيرا بمن دام ضيفا نجد ربي من جوار مدركا والمشرك بالمصطفى المدركا بارك لي اللهم في القياس بمن جعلته دياري ياسي ونصر جنابهم بالسير والدار فلك غربني بجاه الهدار دبدل لي ربي نصار فيك وفي خلي ولا نور نشار عابدني خير حاضر الوار أنجسني وعدم بيض النهار الممنوع والمكروه أكرم رب العرش سموريني والدي سبتيني في الدارين سب سلامة نبي الأنبياء عليهم رضوان من الأصياء نبلين والألويساء محل هداه فجل ألظم صام رفع أهل بدر الإسلام وسنصار فجار السلام باب ويسر الخلاص وسر من أنا القناص بان لا قيد والبقمة تسوفين لمن دان خما قضية الله والدود نمري أبغض آياتي بنبي محمد سري فر يا خمس برام سري فر يا دم صبرا أي سري فر يا أمام Ahmad Khadim Serigne Fall yaa xam sa borom Serigne Fall yaa gëm sa borom ay Serigne Fall yaa amoo borom yaay doomi Ahmad Khadim Serigne Fall yaa man sa kanam man sa kanam yaa am ma أين غوغة الكرام سكركن أحمد الخديم ورنا مجابة الكرام أنا برم دار السلام سرق بك مين جاي جموم سرقن أحمد الخديم سرق فليا نك كنيان دوتو شاكاري كيف كل نيان أتمنى يا كنيان ci barke Ahmadul Xadim murid yi xaadir yi ak yi jaani ñi ba ko jooy ak suuf si kasamaaw sëñ na xol yàlla sëriñ Fallu Mbay Daaru Salaam guddi mooy bis bi ñuy moom ñun gaay Ahmadul Xadim mboolem lu nekk ci dunya lépp lépp ma ko jooy lu nu xam lu nu xamul mboolem lépp yàlla masin la ñu moo la way way wi di sakku ngaram ci yàlla ak ci sëriñ Tuubaa ma yàlla yëgur na yàlla moo tax ma ak sëñ si yemaal la ma ak doole jaag may ak xarbax yàlla ee ma jooy fan laay ma si la ñañ daan saab sëriñ saab xarit ci ma sant yàlla soppi baayu mel almaya dem leen Sëriñ Bamba doomam ji amul nara raw na leen Sëriñ Bamba na wax boor ya na soppi baayu mel ak may ya déglu leen Serigne Bamba doomam ji amul dara raw na leen sadal baara jaamal yàlla tey doomi Mustaqim ci bergu mu taale bi yàlla mel ni weer fàllu moo di koom lii doo ma jël saa lépp man lii doo ma jël saa lépp man tamba ji bi ba ko lu sëbu jàll bi ma duru dana ko doy sëriñ Fallu xamul dunya takk na bala ñu man ca banal la fii nga fàllu démb si waa ci mujjisaatam waa ji ñëw di ñaan Sëriñ Fallu may ko mu dem wóolal fa yàllaaw amal ñu ci mujjisaatam waa ju dox ci ñu yeew Sëriñ Fallu ñaan ca mu wer bay bàkku yàllaaw amal na ci mujjisaatam waa ju repp ju ñëw sëriñ Fallu joturu ko ngir pour yàlla yàlla amal na ni mu ji saatam waa jumbaar bëggata Fallu ñaan ca dem tiiraas fa yàlla amal na ci mu waa ji ñëw bëgg nguur sëriñ Fallu fal ko mu raw maasal ku yàlla la siniir Senghor ni sëñ jëgëw ci fan yàllaaw sëñ Ball añ na Senghor ca ko kenn da sëriñ Fallu lay doon wóor na yàllaaw li yàlla def loo ko bañ bañ bañ a sal danaam moo def sëriñ Fallu mi gën ñëpp yàllaaw ku sopp sëriñ Fallu booy dee tëddi jannatu woo ku noonu sëriñ Fallu booy dee maari yàllaaw jërëjëf baal ma tuuti yàlla moo dogal ni ko laaj ma kumba mi waxee Alioune Dieye dafa nekk xale bu yaru moom moo waral sama jotaay waaye kenn ku ne xam na ni ñun amuñu jot barke sëñ Tuubaa maa ngi nuyu nag sama mag yi nekk fii ak sama yaay njàmbaay ak yaa sóora ak suma mag ju baax ja nekk ca Amérique Louis ñu nuy bàjjan ami fay ñu nuy yaanday ngom waaye di ñaanal bàyyi siidi bu baax yal na ko fi yàlla bàyyi di nuy meer ami jéey bu baax rii bi bi ma fi jàng si booba xamaguma sax waa ngéwal gi ni samay mbokk la meer ami jéey papay naar doon ay xale yu ndaw ñëw di jàng si ñaan gi la 11 novembre li ma wax lu yàgg la yaa ami jee kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi moom sama soppe la sama xarit la di nuyu waar yi bi yëpp nag Alaaji Ousmane Mbaaya Moodu ñëpp maa ngi leen di nuyu sama limee man na naa waaye ma bëgg rek kenn ku ne ci ñun mu jàng Faatiha lu ñaan bi kenn ku ne ci ñun na jàng faat yi faatiya jàngale fukk ak juróom mu tëjee ko salaatu bu man yu yéene yool bi ñi nga xamante ni ñoo fi nekkandoo woon ak ñun daaw te yàlla dogal ren fekku leen fi te seenu ñàkk fayda yóbbu leen ñun sunu ko am fayda bàyyiwul fi ku ci mel ni sama ndajaay alaaji Tamsir Fall alaaji Naar Mbay ak sunu jarbaat bi nga xamante nii boobu ba léegi ñu koy jooy mooy mbay géey mbaay waaye di ci fasaale wiyee seng seng fay ak alaaji bàcc benn wiyee seng léegi te tax ma fasaale wu ci su ma musaa droite rek daf may tàll loxo ne ma sama xarit kon nan lañ ci dugal ñoom ñëpp ñaa ngi xañ na ci ak papa ñan bilaal waaw grand sama xarit la na ko yàlla dugal ci ñaan ñi fi des yal leen fi yàlla bàyyi ci barke maa ngi nuyu ñëpp di nuyu nag sunu bii nga xamante ni amuñu ko ñaar muy sëriñ Modou Mbacké euh, oyof na lool oyofal boppam waaye nag diis gann ci biir ndax may faral di wax ni Sëriñ Tuubaa lépp lu askanoo ci moom rek dan laa war di waggal kon sëñ Modou ñu ngi lay nuyu di la jox wàcc waaye wala yàlla jox ci suñu jëm sëñ Bay li ci war a topp nañ ñëw man dama doon barkeelu rek waaye kenn ko ne xam na ni njaabum gireem xajul ci waañ waaw maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar tey damaa ñëw fii nag ak sama sama mbokki wuude yi nga xamante ni ñoom sama ay xarit lan ñoom Guèye Touba ñoom Mame Thierno maa ngi leen di nuyu ak ñi nekk ci atelier bi yëpp atelier yëpp di nuyu Moussa Diop mii sama jarbaat di nuyu ñëpp rek maa ngi sant bu baax di gërëm bu baax maa ngi daaneel sama kàddu yow asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa sëñ Mbaye boo ma ko mayan man dama habité woo fu ma fekk deret sëñ Tuubaa dama koy laajal ak diir loolu moom sama deret la nekk ma bëggoon ñu jox ma addiya sëriñ Touba man sama addiya ngi nii ma jox ko sëriñ Modou Mbacke li may laaj nag ku ci dugal saw ñàq bul ko jox Modou Garas bul ko jox sëriñ Modou Mbacke jox ko sëriñ Touba. suñ tubaa nag moom ku ko ku ko jox saw ñàq dina la ko tegal foo xamante ni ëllëg boo ñëwee bu la ko jóoree di nga xamante ni loo defal ni nga ko xeeb ma bëgg rek ñu jox ma addee sëriñ tubaa ma jox ko sëriñ Modou Mbacke mu baax mii maa ngi jégalu bu baax sëñ Mbaye góor ma góor ma góor am am dugalal lii na ci ñëpp dugal borom maxana mi na wër ñëpp dugal ci maa ngi ñaan ku ci dugal bu ëllëgee li mënut a ñàkk muy àjjana yàlla na la ci yàlla dugal ci barke Cheikh tey mbay nga sax xëcc bi ngay baax loolu sax tàmpet la rek bu màggee day waaye Modou Gallass mbay nga tudd léegi kon nag fa tabaar gàlloon Modou Gallass yàlla yàlla dëgëral la dëgëral nga jaam yëpp yàlla yàlla fay la sa nijaay tafsir di la daan def waa koñ bi lu ñu taxawee rek mu nekk ci yàlla yàlla fay la ko ñaanal ak ñoom Baye Naar Mbaye ñoom ñëpp yàlla ñu ko yàlla jotal ci barke Seexul Xadim léegi bu ko demee dañuy yëkkati di jox rek suñu bopp laayeen yi ndax ñoom libaas waa kër Baye Laay Seydi yi ba léegi ñu ngi toog kon su ko defee ñoom lañu ñuy jox rek ñoom tamit ñu ci def seen participation kon ñu ngi leen di dalal ñu yéeg di nuyu suñu doom ànd njaay muy xale bu baax boo am taxawaay ci Médina am taxawaay ci diine ji soo defee ñoom la jox ñu yëkkati kon bismillah kon nag kàddu gaa ngoog bismillahi rahmani rahim aouzu billahi mina sheytaani rajim la xawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim alhamdulillahi allazi xalaqal xalq ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi seydina muhammad rasulullah yi moom bàyyi laay alayhi salaam ñuy nuyu ñu fi toog ñëpp di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñuy nuyu suñu yaay yi toog dëkk fii ci gox bi ci njaañeen waaw suñu yaay Nabou Diagne jiite ko yaakaar naa ne bu ñuy waxee turam rek wax nañ ñëpp gis nañ ñi ngeen ñu taxawoo keroog ci seen gàmm bi dalal ngeen yaatal ngeen mooy nuyu nag sama xaritu bopp sëñ Pape borom luy 23 maa ngi lay jaajëfal bu baax di nuyu sama ñaari grand yu dëkk fii ci gox bi ku mel ni Pa Ousmane fay waaw ak Ousmane Silla Makhtar maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar lii ñuy bëgg a yëkkati nag kenn lañ koy jagleel muy Mbaye Mbaye mu nekkoon koo xam ne référence la woon ku ko xoole rek maam Serap doo ngay gis ci moom muy dëgg bu wér. bi ma koy mujjee gis fii daf ma doon ñaaxat naa ma fi nga teg sa tànk foofu la boo fa jógee kon yaakaar naa ne kooku bu fi jógee foog ñu fàttaliku anano ya mananu ya dayano yow ma dina anano ya wurbey malikuna اليوم دي يا ربنا يا ربنا يا ولا يا مالكنا يا ديانا لا يوم دي يا ربنا يا ربنا يا وجبا يا ديانا لا يوم دي يا ربنا يا ربنا يا ولا يا مالكنا يوم عدي يا ربنا يا أنا نور يا مسواه عجبا يا ديان يوم عدي لا لا لا لا ko xéewal laay bari ngay laay yàlla yàlla dolli ko xéewal laay bari ngay laay yàlla yàlla dolli ko xéewal laay bari ngay laay yàlla yàlla dolli ko xéewal laay bari ngay laay yàlla yàlla dolli ko xéewal laay bari ngay laay yàlla yàlla dolli ko xéewal laay bari ngay laay taas ñu ci barkeem laay bay gay bay yàlla yàlla taas ñu ci barkeem laay bay gay bay la ilaha yalla yalla tas bi si barke la ilaha alhamdulillah lam lazal بايلاي الحمد لله الذي لم يزل الحمد لله الذي لم يزل عجبا سرد سوى الجن إلي رسول الله إليكم إمام العين كنيل أمر العظم بايلان كايلان لولين بكايلان هاي العين آدبو آدبو آدبو daayalaay isle bambay lay ni ajibo ajibo ajibo lay ajibo daayalaay isle bambay lay ni ajibo ajibo ajibo lay ajibo daayalaay isle bambay lay ni ajibo ajibo ajibo ajibo ويلين طايل عيني كليلين كليلين كليلين قادمو طايل عيني ويزلين طايل عيني كليلين كليلين كليلين قادمو طايل عيني ويزلين كليلة كليلة كليلة لا يا لا يزلا من باي لا كليلة كليلة عادي لا يا لا يزلا ولا ولا تيلا ولا باي لا يزلا Amrulwana, caaxaan ci rabbana tsunami. Wait till lii gërëm la sëlimaan bay lay baax na jàlle na aa lay lay lay

أنت سيدي مرسلا سيدنا الإمام أنت سيدي سيدنا الإمام أنت سيدي مرسلا سيدنا الإمام خط سيدي إمام الله خط سيدي مرسل بالله سيدنا الإمام الله سيدنا الإمام الله خط سيدي مرسل سيدنا الإمام الله خط سيدي أول سيدنا الإمام mat Seydina Ilaahi Seydina Limaam maam li ma yow xanaa yow yàlla buur bi ne ma yaa ma yaa ma yaa

bay waaw waaw moo dëggal maam bilaay Abdoulaye abi bayay lay Abdoulaye abi walay ko ko sindiro walay ko ko sindiro baylay moo jëmal maam bilaay Abdoulaye abi bayay Alaaje Baye Abdoulaye xool na bàyyi laaye laaye na bàyyi bu ko gëj na bàyyi laaye ki ni bari ma bàyyi ba baax na lool bu ko xool xool na bàyyi laaye bàyyi ba baax na lool bu ko xool xool na bàyyi laaye ita laay sa bàyyi ku ko xool xool na bàyyi laaye ita teew sa bàyyi ku ko gis gis na bàyyi laaye bàyyi Abdoulaye Thiaw sanga see maam bay laay mooy ramu jàmm Hallelujah. ilahi ya ilamu jamnya ya ilamu jamnya di modi bai bai bai bai يا إلهي مدامي يا إلهي مدامي كل جليل الله يا لا يدبل دبل يا الله sauba yal na sauba ba yel yeli Allah ay dobel dobel lay gëm nanu na yaay yoon ni Allahu ma di lay woote dum dum ya yonen la ilaha Mam bay lay gonnun ya yonen la ilaha ma du lay wote mam bay lay gonnun ya yonen la ilaha illa la sirfu la

conférence waxtaan nañu yal yàlla fay leen seen participation am na solo di leen sant di leen ñaanal mu mel ni ñu ngi yëgale tam cant annuel bi nga xam ne moom la ñu defal mbéyum mbaay bu le 4 mai ñëpp bàyyi ci xel fii lañ koy defee le 4 mai incha allah anniversaire boobu cant annuel bi ñuy def fii di ko defal mbéyum mbaay carte baa ngi nii. ñu ngi koy yëgal ñëpp ñu bàyyi ci xel muy tombeek atam kon su ko defee ñu ñaanal ko yàlla yàlla dolli ko leen waaye lu mel nii ku ko def am na ñu la jàppale ñi la jàppale nag bu ñëwee ba dem déggoo nga tudd leen wax liñ la defal day nuru ak mbaadool looloo tax ñu bëggoon jox rek ki nga xam ni muy Pape Djibril gay li nga xam ne moom la ñu jox ñi nga xam ne ñoom lañu war a sant lépp Pape Djibril kon nga egsi bu ko defee Alioune Guèye ñëw dugg def deuxième participation su ko defee xanaa dañuy ba déwén. Tafsir Malick Maodo Malick Gaye mi ngi fi moom tam day ni kon fii ah, kon baax na kon daal ah kon kàddu gaa ngoog kon koo war a sant rek xëy nañ ko soo war a sant. kon auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwwata illa bika ya ali ya azimu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya immata shaykhi ahdari lana بعزى المعذر والترتيب بنظرة بها أنال وطني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq fa tabaarakallaahu di jégalu ci kàddu yi nga xamante ne ñu ngi koy yëkkati ci suñu kanamu kilifa yi wax dëgg fa yàlla ndax kàddu ndigal lañ fi lañ fi toogee te ndigal nag ah fa tabaarakallaahu mën jëfee ñàkk mën jëfee looloo waral ñu yëkkati kàddu ci seen kanam waaye du amaana bëgg cër wala leneen ak leneen fa tabaarakallahu ahsanul xaalixiin kàddu yi du gudd ndax wax dëgg fa yàlla ki ñu fi tax a daje moom mi ngi waaj pour ñëw deuxième ñëw def deuxième partie bi ci kàddu ñu war a yëkkati ay kàddu ngërëm la ak kàddu cant la du ñu guddal fa tabaarakallahu ndax moom def na ko sànq di commencé ci ñi nga xamante ne ay autorités étatique lañ en commençant par le maire. de commune de Médina Bamba Fall wax dëgg fa yàlla ak euh, kii di Cheikh Ba ndax ñooñu wax dëgg fa yàlla ay autorité étatique lañ te ñoom lépp lu ñu def ci diine dañu ko war a def bien vrai que ay politiciens lañ ndax boo demee ci ñi jàngale tubaab dañu ne politique sans éthique nekk vulgaire technique et de manipulation de corrupteurs et de corruption des hommes mooy tey politique dès l'instant mu tàqali ko def lu baax rek nekkatul politique leneen la te ñoom bu ñu jëlee seen dërëm wala soit jël seen alal jël seen temps def ko ci bu dëgg fa yàlla dañu ko war a def ndax obligation la ci ñoom bu dëgg fa yàlla ñu leen di gërëm di leen sant fa tabaarakallaahu di beral nuyoo tamit waa Njaañeen xam naa dañ ci tabb kenn rek muy njiit bi muy Adja Nabou Diagne ñu koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ko wàcce wàcce waayam fa tabaarakallaahu ba tey ci gërëm euh, Alioune Dieye nee na mm. mi ngi waa daayira soppay Serigne Mansour si loolu wax dëgg fa yàlla dafa ma ne ñooñu na leen bëral nuyoo ndax programme bi bu amee yàlla ak ñoom a tax ndax bi muy door ci daayira bi la dooree ba yàlla def li muy def fa tabaarakallaahu di gërëm itam Fallou Diagne wax na ko sànq ak Paate Ndoy Ba ak ki nga xamante ne mooy euh, Kourouma Transit sànq mi ñu fi woon amaana dañu ko fàtte woon lim sànq ci njëlbeen waaye moom it ku baax la ñëw na def participation aussi tamit toogal ñu war dëgg fa yàlla loolu tamit euh, bu amee dañu ko war a ndax lu rafet la beneen bi tamit ñuy beral ngërëm kii di Astou Ndiaye bokk daayira sopp Serigne Mansour si ndax moom dafa bokk ci daayira bi Alioune Ndiaye jël ko seppi ko ci ay moroomam euh, boole ko ci ñi nga xamante ne da leen jagleel bés bi te loolu nag bu amee ci ndaw wa dëgg fa yàlla dañu koy euh, jaajëfal di ko ñaanal yàlla yàlla yokk ko kàttanal bi jaay sallallahu alayhi wa sallam li li nga xamante ne moom mi ngi koy def amaana liggéeyam la wala soit jàngalam yàlla na ko yàlla yokk baatinan wasaareen bi jaay sallallahu alayhi wa sallam xam naa remerciement yi loolu la ñuy euh, gërëm tam li nga xamante ne mënoon nañ tudd seen tur te euh, jotuñu ko wax dëgg fa yàlla parce que ñun ñii di wax ay nit rek lañ amaana mën fàtte waaye Alioune Dieye ci kanam moom dina ñëw bu amee loo xamante ne fàtte na ko dina ko def fa tabaarakallahu ahsanul xaalihin beneen bi tamit ay kàddu yi nga xamante ne dañu ko jël jagleel ko ki nga xamante ne mooy euh, Alioune Dieng ndax yàlla dogal na man mii di wax euh, man ak ah, moom depuis xaleel ba léegi ñooy ànd te amaana sax mës nañu bokk classe te bi ñu bokkee classe je pense en classe de cinquième bés mus na ñëw xam nga xale mi dinaa moom bu nekkee classe day perturbé rek huit heures ñëw di perturbé di sonal suñu prof histoire jour procession bi jël ko man ak moom teg ñu ci kanam. teg ko ci kanam dañu dañu posé ay ay questions de wax dëgg fa yàlla loo xamante ne ci euh, njàng la wala soit ci leçon Alioune Dieng da may may loolu mu dugg ci bu baax parce que loolu dafa am solo. waaw. Euh, euh, su ko defee comme. تبي يا سماء ما تولى سماء سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد كيف ترخى روحي كل ينتبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم يا سماء ما تولتها سماء سيدنا محمد سيدنا محمد لم يساوك في علاك وقد غال لزنا لزنا إن كدونه وسماء إنما مثل صفاتك للناس Gracias. كما مثل النجوم الماء إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل ودي فما تسمع إلى أن توعك الأدواء سيدنا محمد لك ذات العلوم من عالم الغيب ومن آل آدم الأسماء لم تزل لم تزل لم تزل لم تزل لم تزل لم لم تزل لم تزل لم تزل يننتبي مسلا ديوان

مامدا مامدا أوه مامدا ماما ماما ماما ماما Narina koti bombadu, narina koti bombadu, narina koti bombadu. ñaari loxo ci boppam te la ñaawal kenn mënu laa teg tuuma ndax yàlla la seet kenn du la madat maamadat maama maama mama dat lu ñu taxaw mama dat ñaari loxo yëpp ci Mamadu ñaari loxo yëpp eh ñaari loxo ci Mamadu ñaari loxo yëpp ci Mamadu ñaari loxo ci Mamadu ñaari loxo ci Mamadu

البرايا يوم مصدح على بألف على على نبي أنا صبي من الليل الحروب ما في حركات الرفيق تدبير ثم المنى ثم كل عوض وزهد

Oh,

Babacar bay sëñ Babacar yéena ayati sëñ bay sëñ Fallu Mbakke yéena ayati sëñ Fallu benn yoon Allah ñaari yoon Fallu benn yoon Sëriñ Fall de lala kado Sëriñ Fall de lala kado

tey sëñ Babacar yéen leen aayo tey tey ku ko faju te lu wata dem Tiwaawan Tiwaawan Tiwaawan Tiwaawan Tiwaawan ziyaara ziyaar sëñ Babacar coow rabbi salli على المحمود سيدنا والموسر آدم ودين والوالدين على النبي وعلي علينا صلاة لنا دائما ليس فيه وسني واجبا دمك فوق فكري dafa xalangu ba mu am nag waaye mu naan ko yaay borom Yeah. Brasil! Yeah.

Your desire كل أعجزت كل الوراء أعجزت كل الوراء لك معجزات أعجزت كل الوراء جانجي من جوجو تامبالي لك معجزات أعجزت كل الوراء وسلم لك معجزات أعجزت كل الورى يلا ني بنين بغي ما بغلين بغلين سيدنا محمد سيد المرسلين أعجزت كل الورى يلا نينا أو ما دوم جوجيني نيخل أو ما ركو جوجيني نيخل أو ما يا جوجيني نيخل من يلا سيد الآخرين أعجزت كل الورى يلا ني سبلا أم doomi Abdallah Dia ak Amina Dia ku ko bëgg man yàlla ma bëgg la. Sayyidil mursalin ajazat kul wara. Amina ak groupe lam tazal yéen yàlla bëgg na leen ndax yéen a tàntal rasulullah. Sayyidil axirin ajazat kul wara. yàlla ne xul in kuntum tuhibbuna allaha فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ku bëgg yeneen bi lenn rek lay ñaan dangay jóg taxaw fa nga toog yàlla jéggal la say bàkkaar ngi darajay rasulullah sayyidil قال محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما علي ماغي ماغي فوق كروك ليغي سن كور جوت خد جوت نالين لكم معجزات أعجز كل أنا داري bi baayu Serigne Habib baayu Serigne Cheikh Mat Tidiane baayu Seydi Jamil yàlla na xibbe aljana baayu Serigne Pape Malick Sy baayu Amira baayu Soxna Aïssa yàlla na fekk baayam ba aljana yéen yéen a tàntal Rasulullah lakum mu'jizaat ahdath kull wara dama lay wax benn nag lu Muhammad laka wax ma ko ajazat kullal wara xam nga luy mu'jiza yonent bu yàlla yónni mhm. dalay jox miracle bu gaa yi ne yàlla yónniwu la affaire ngay door na ñëpp ñu wedam mu'jizaat yooyu nag yi ci yonent bi am kenn mënu koo wàññi alquran li mu indi bari na dund yonent yàlla Muhammad lu mu toll Pape Jibril tey laa man benn rek ci mojizaatu rasulullahi xam nga ban la na mi nekk màkka di woote moom seen soppe bi ko rek yàlla bëgg ko rek dem aljana yaakaar ko rek dem aljana moom Seydina Muhammad yéen xaw ma ñu ban ëtt waaye bii yàlla taxeel na leen ngir rasulullahi yàlla du kaf du caaxaan yàlla du mag muy wax di waxaat yàlla ne bu ngeen bëggee ma bëgg leen bu julli yi baree woor yi bari te ma ubbi seen xol bi gisuma ci cofeel ci Seydina Muhammad julli yi zéro na bee nekk mag di woote moom rasulullahi sallallahu alayhi wa bi ne ndax biir kaaba gi am na trois cent soixante yàlla ñetti téeméer ak juróom benn fukk suñu aajo fajuwul ngeen benn yàlla moo am yow Muhammad doomu Abdoulaye Diak Amina nga yow fii nga juddoo bu ñu fontoo yow Muhammad Ali nabi na yàllaa ma yónni Abu Jahl wooyu ku ni wax Habib ibnu Malik ne ko Habib Muhammad nii de nee na yàllaa ko yónni Habib ne ko man ñetti question laa am question yi boo ko tontoo ma xam ne yàlla moo la yónni nabi ne ko bismillah yow laay déglu Habib na ko garab gii nga deewoon na suñuy maam la deewoon bu dekkee léegi léegi ñor léegi léegi man Habib ma gëm la. deuxième question bi weer wii boo ko xaree ñaar man Habib ma gëm la troisième bi sama xel la nekk boo ko trouvé ma xam ne yàlla la ñu. nabi jël loxoom bu tedd ba teg ci dàtt ba ala innama yumnaahu sayfun wa rahmatun biha ayna at xablal awaani naxiilu garab ngay màgg garab gay màgg xob yaa ngi génn garab ga ñor na doom ya ñor na waa màkk witti nañ màcc nañ abu jël na ko eh dalal defal ndànk njibarkat la bu ko gaaw a gëm de xaaral ba deuxième bi ñëw mu ne ko deuxième bi mu a ko xaaral ma weer wi ñaar na bi xaar ba timis na bi génn màkk ga naan ko nabi kii da lay toroxal munoo xar weer wi xamul ne weer mi ngi amee leer ci rasulullahi weer bi nii la mel badr la woon fukki fan ak ñeent nabi tàllal loxoom iqtarabati saatu wan saqal xamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu shi'run mustamir iqtaraba bartaati اقتربت الساعة وانسق القمر وإن يروا آية يغردوا ويقولوا سحر مستمر اقتربت الساعة وانسق القمر وإن يروا آية يغردوا ويقولوا شعر مستمر وير وي ñoo ba tegu ci tënk Seydina Muhammad Makka gépp di gis nabi xar weer bi trois parties benn mu def ci poosam benn mu def mu jox mu jox waa Makka benn bi mu delloo ko ci asamaan si allahu akbar yeneen ti yàlla Muhammad amul morom Abu Jahl ne ko bu ko a gëm ñi barkat la des na troisième bi nabi ne ko troisième bi xam nga la mu ne ko bal la mu ne ko sa xel la sa xel naa ko mu ne ko bal la yow mu ne ko ñaari doom nga am béykat bu judduwaale mu gémmiñ dañoo muuma dañoo la fañ boo demee sa kër ñoo lay ñoo lay gàttandoo ñooy wax ak yow Habib nag kii daa li ñuy wax dëgg la ndax troisième bi sama xel ne waxu ko ma ko wax ko bu la ko dalal njibarkat la day xam Habib départ ak i ma ngay dem këram dem na ba këram ñaari doom yi ko gàttandoo pap pap pap pap pap pap mu ne ni allahu akbar pap ba jugal doom ku leen may lii ñu ne ko benn gu taaru gënu góor gu jekk sikkim ba daanu daa tas sa xaram ga ba jërëy ba ba ci bët baabaa baa ñuul li ba jërë say weex da dee tàll la say ñuul na kukk nda ba bañ tasaaroo ci baatam baay góor gu taaru gu jekk karoo gaa nga daanu ci suufam mu ne ko baay nu tudd waxuñu turam dane bu ngeen gëmee ku ñuy wax muhammad naa leen jox tànk may leen di gémmiñ ñu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah ba loolu moo waroon ñu dox looloo waroon ñuy wax ak yow xabib ne allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lu Habib def gaa ñi xam ngeen ko daa jël cinquante gëléem ne jox naa ko Muhammad Adiya non seulement gëm gëma ko gëm mais xale yi li ma financé si ñoom ba léegi mënuñoo tane kii ma ko fajal daal dédommagé bi ma koy jox li ma ko dédommagé mooy ma jox ko addiye cinquante gëléem abu jëlin dogaale gëléem ni moo ko moom abu jëlin moo ko moom ñu dem njabi ne maa moom ñu ne moomuñu màkka ni kaay la ñu laaj gëléem yi kan mooy seen borom mu teg gëléem yi ci pencu màkk mbokk yeneen ci bi naan nabi bu dee moom moo ko te ngaa wax rek balaa gàcce duñ dal nabi ne leen gëléem bi sama addiya la Habib ibn Malik moom ma ko jox ñu ne gëléem dana wax nabi ne bu ngeen doon wax loolu wax mu teg gëléem bi ci pencu màkk bi Abu Jahlin yow yaay premier kii wax ak gëléem Abu Jahlin ñëw ak délégation gëlëm yi ku leen moom gëlëm yi faaluñ ko ñu nga lekk seen ngooñ kat ñu ngay sàqam faaluñ Abu Jahl gëlëm yi ku leen moom dix minutes gëlëm yi faaluñ ko xool ñu ko sax ñu ko Abu Jahl daa mel ni moom moo gëlëm yi tey ngaa puus ñu woo Muhammad ibnu Abdullahi sallallahu alayhi wa sallam daawul teg comme man damay doxee teg benn pas deux pas déedéet ñaari tànk yi ñooy jugandoo ñooy tegandoo Seydina Muhammad mosoo dégg loolu nabi bu daan dox ñaari tànk nii ñoo jugandoo ñoo jegandoo moom rasulullah suuf si day mel ni kuy ziar Seydina Muhammad nabi ñëw xola ba ci gëléem bi eh, gëléem bi ku leen moom benn gëléem moo ne nahnu hadaya min habib ibnu malik ila muhammad ibn abdallahi rasulallah sallallahu alayhi wa sallam macha allah gëlëm day wax de gëlëm gi nee na naxnu hadaya alin Tuuba nga jëm naxlu hadaya min habib ibnu malik papa tiwaawan nga jëm ila muhammad ibnu abdallahi rasulallahi kon ngiraan defaral ñaari micro kii ci bee tiwaawan kii ci bee tuuba ma koy toj ba ma dikka ñaa xam ne mënul toj ma dogalee mën a toj ñu tasaaroo ñu bi ba déwén masaya ka yaa kulli la dal kulli xatalaan maa ngi ñaan maa ngi ñaan arin génneel génneel ma ci nekk adama te di nga waxas te du ma firi ko doo wax waxal mazayaaka yaa kulli la tar kulli xar jalat eh eh waxal ko dégguma la mazayaaka yaa kulli la tar kulli xar jalat alin bari na waxal ko dégguma la waaye mazayaaka yaa kulli waxal ko dégguma la mazayaaka yaa kulli waxal ko mazayaaka yaa kulli la tar kulli xar jalat la tar kulli xar jalat ko mu gàttal. mazayaaka yaa kulli ladal qadajalat. waxal ko mu gàttal. mazayaaka yaa kulli ladal kulli qadajalat. ok mbooloo mi xanaa ku bëgg bàyyi Serigne Fallou Mbacke ku bëgg bàyyi Serigne Chahibou Mbacke ku bëgg bàyyi Abdoul Khadir Ilimane Ilimani ku bëgg bàyyi Serigne Fallou Mbacke borom na am du am borom du am du am bàyyi si Abdou Karim Mbacke borom makarimul akhlaq maa ngi Cheikh Modou Kara Mbacke borom Bamba every day every moment every second ku yaakaar bàyyi Serigne Saliou Mbacke borom وبصاحب الخطام قاتب الانبياء يا يا نتباوت يا يا نتوبا يا بكم جنن ما ما ما رمبك مولا جرت بك بولا بك كدور وبصاحب الخطام خاتم الانبياء بكي كوبك يا كاو سيبرا مفال لامب دايو سيرين مودو مصطفى فال baayu Serigne Maodo Aminta Fall maami Serigne Assane Fall naaru Kawsara Fall maami Cheikh Jëmb Fall xalifa bi maamam ja yaakaar ñoo Cheikh Ahmadul Xadimu góor gu dama tubaab bi ci géej géej ji taxawal laa ilaha illallah samp jumaay Tuuba samp jumaay Njaareem samp jumaay Mbàkke Serigne Muntaxa ko lil Muntaxa wajjahtu sin dakaaru zikran bihi xatkum kimal makaaru yaakaaru Seex Isaa Jeen borom jeen nag la gën baayu Alaaji Baara Jeen mooy joobe rasulullahi ana murid yi def leen nii ma joobe rasul muhammadul isaan woo lam yaati bu dee ma ma jëli ko ngiraan maa من خادم الرسول برم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على كتاب المستبين مع جميع النعم أحمد ربي العظيم مصليا على وهين بكلكلي وكلمي ذكرت استفني ذا خدمة في العلن له عالمي له كتابي داعيا بما يحب ماضيا وخادني أغراضيا زادا لدار الكرم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر سعينا ما بيسمونه كرم بك برم بمبك every day every second every moment my dear رسول محمد لسان والأبيات قال جنب ولا نقول محمد لسان والأبيات التقي الرصيد حامل لواء طريقة تيجانية في الديار السنغالية مولانا الحاج مالك دوم عثمان جاك سواد ونجا باي سرين دابكر بروم سكر يالا مجكبا باي سرين دابكر بروم مانتو مجكبا باي علاج منصور بروم ياري كاليا باي علاج عبدو بروم بجاب مجكبا مامي سرين باي منصور يالا في ياجو تبير مامي سرين حبيب سمالك أديب الأدباء عيلم العلماء النحريري النحريري مملاجي مالك الأحمد الخديم جوال رسول بالحي والحي والهدى ما مودنا سمعني منيخ لباب الأي والأي والهدى لحمد الخديم وخ محمد اللسان ولم يات باي سرين فالو مباكني باي الله جبار بروم ركدي باي عبد الخادر إليمان إليماني baayu Serigne Fallou Mbacke borom na am na am borom du am du am maami si Abdou Karim Mbacke baayu Serigne Salihu Mbacke maami Serigne Moustapha Salihu maami Serigne Cheikh Salihu yaakaaru Cheikh Issa Dieng borom Dieng nag la gën yaakaaru Serigne Mbacke soxna loo borom tay fat baay laa mooy maami gaynde Fatma moo joobee Rasulullahi Muhammadu nee na Muhammad bi misaaluhu ku mel ni moom yaa yaa di loolu fi ñëw ba yomal na diina gëleem gi maa ngi ko yesal nu gëleem gi mel mu ne amuunun hijaanun ma arau shaamatun bi niktin bihi lahoo edu tuyuuri fiyuuru alaaji malik ne gëleem gi maa ngi ko yesal ci buntu aay buntu kéemtaani moom gëleem gi mahatti aminil wahyo wa huwa rasul mooy palaasu jibril mi yàlla daan yónni ci yónnanti bi ma waree gëleem gi falaa ko yesal ngir ziyaar rasulullah Maodo ngay wonk Maodo doy jooy fa kay fa yatibul amru in dumtu hahuna wa ana alladi lawlaahu daaxa sabilu wa ana alladi fallahu yuti lana almuna alin bu toog jugal falaw naaw xàttal naa yarkunu fatiilu wa anna alladi durrun yatimun wa jawharun jasimun wa ibridu zuhubi saqiilu alin alaaji malik ne hmm. fa kayfa yatimu lomru in dumtu haa huna hmm. sama dund mënul neex man alaaji malik lu waral mënul neex Maodo mu ne maa ngi dund te mënu maa ziyaar Seydina Muhammad su ma demul Makka ak Medina sama bu neexul man baayu Serigne Babacar Sy wax leen amin alim na gën a kawe wax leen amin alaaji Malik ne yàlla yàlla faj aajo yi wa anna alladina yuti lana almuna alaaji Malik ne yàlla yàlla faj aajo yi ci barke rasulullah haqqan la yakunu fakidu يوحنا الذي كانك مدينة درون ورفق لم نهدي مو بنك دنك ممنون ومفتاح المصباح المنير هاد المصطفى عين عيوني إن الله اشتفيت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 الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والحمر بقصبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط فلا تبصر الميوان والأرض ودعا للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو عص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان الإنسان من صلصال كالفقار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان دما كودي يلا دغلو ماغا جمبا يمبل دو في بدر رسول الله ماgal yaakaar jaami kooku mooy kan kooku mooy kan kooku mooy kan waxaate li nga wax déggu ma ko kooku mooy borom gaaya ki ngay bëgg a wax Abdoulaye ko tur Hachim Abdou Manaf Xusay Kilaab سورة كعب لبي غالب سهر مالك نظر كنانة خزيمة مدركة إلياس مدر نزار مان عبدنان مام يقوري جيحنا ندوش مام جيجيبيا فهن فاطمة سلمى وعاتكة خبي وفاطمة إن لهن شم وغشية بنت سيبان ومؤوية بالواو سلمى وليلى هن لم تلم منهن جنلة برفة عاتكة وبرة ثم بنت سعد ذي الكرم سلمى وليلى رباب سودة ومعانة jaalatu wa mahdadu al ak yaata taxtani mi yaa nga ca maami jigéen ya kooku naam amina la bintu wahabin ibnu abdu manafin ibnu zurata ummul mustafa al alami ibnu kilabin qul fi intisaabuhuma haatikatun qiila hindun um wax bi gibi kooku am na ay baatax xaaris ay baatax xijil diraar muqawim hamza abi lahab abi talib abbas am nay bàjjen arwa umayma bayda atika sofiya ñoo nekkoon bàjjen Amen. بالاسماء دائرات اي واي تطري تدي لو ci bëgg lan ngay ñaan liman yàlla may ma ma gëm la ba korok may de wal majd yàlla may ma teddaange ba yow yàlla may ma ma dee tabbi aljanna yàlla may ma xéewal Ahmadou moom la tuddee Mouhamad Mahmoudou ku yàlla gërëm la e jaam yi teewul faatiwul ma may lu bi taade asiru ma maa mu coow raqibu ma ma yàlla mu jàll di yaari moom la yàlla yónnee mu kafi ma may soobo ma may xàqu salaatu yaakaar bàyyi Serigne Maodo sama Serigne la ngi jooge Rasulullah fasalla ali muslimina najaatu yaakaar bàyyi Serigne Baye Abdou ngi jooge Rasul fasalla ali muslimina najaatu gaañu maa ngi bëgg a tàggoo maa ngi bëgg a ñibbi tàllal leen loxo yi ma ñaan rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab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 إلهي من الدهر إلى الدهر وتقدست إلهي من الدهر إلى الدهر وتعاليت إلهي من الدهر إلى الدهر وأنت ربي ورب كل شيء لا إله إلا أنت يا أكرم الأكرمين والفتاح بالخيرات اغفر لي ولعبادك الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك بابا ما جينا نبغد للمسلمين نجاكم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة في دوام دوام ملك لا بابا ما ني نان مبتع للمسلمين نجات ايوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بابا ما ني نان غدينا واي مبتع للمسلمين yàlla la dégg ci àddina bi yàlla yàlla yokk sa tur alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladi anxada zahraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma'a al-usri yusra inna ma'a al-usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab yàlla na yàlla yëkkati li mu yëkkati asamaan ci barke rasul lil muslimina najatun sama waay nga ngay sama waay yaa tax ma bàyyi tey bàyyi aajo yi bàyyi jot ngir sa biir yàlla fay ci barke rasulullah kunta alil muslimina nakatu dalla lolu xëy ñaan baa ngi daanu ko bëgg jol makka da ngay taxe yowmal qiyaam kunta alil muslimina nakatu mbokk yi ku dee dem na bàmmeel wa amanun min qawli yawmil liqaa'i alaaji Abdou rek dañu ubbi xol yi dugal ko ci xol. inna hubban bi xaalaka laxmi. Alioune amul murid amul tijaan amul xaadir amul laay xol ba fëgg. wa idaa li muy rafetlu muy bëgg alaaji Abdou nee na boo génnee ci jàkk nuyonteeg nit ma ne la ndax tijaan nga wala murid nga. nee na rocc sa loxo xam ne seetaan dugg na nee na kooku du jullit jullit du la laaj foo doon. foo doon inna hubban bi xaalaka laxmi.

Alaaji Abdou Alli nee na bëgg yeneen ti yàlla ma mooy sama obligatoire wa nafli mooy sama nafila rabbi moom lay naan wa bunyati mooy sama mabét man la baax bu ma xiifee moom lay lekk wa bayti yeneen ti bi mooy sama kaaba yeneen ti bi mooy sama daasa mooy maqaamu Ibrahima mooy sama marwata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 Medina yàlla na fi yàlla dolli jàmm dolli ko ci àdduna bi lahum daaru salaami inda rabbihim وهو وليهم بما كانوا يعملون وسلام خيول وسلام سترة يلا نسك دوين بدرن نري نياو يلا دقرن وسلام خالص وسلام كور بنمو وسلام سكة كوريت لني أم يلا ني أم يلا لني نياك يلا ني باك باكار يلا بمو نك سنو مجوك داجة إذا قاويخ يلا كو جامو لال بركة بركة بركة مدينة بركة صاف بركة تواوان بركة شيخ الحاج مالك بركة شيخ الخليفة على المرسلين والحمد لله رب العالمين nañuy bëgg suñ baawa kër yi bu ñu fàtte na suñ baawa kër yi waaye am na soppe yi suñ baawa kër yi bu ñu fàtte na suñ baawa kër yi waaye yéen a bëgg suñ baawa kër yi bu ñu fàtte na suñ baawa kër yi waaye am na ñuy bëgg suñ baawa kër yi bu ñu fàtte na suñ baawa kër yi waaye ku ci fàtte lu mu leen baara waaye ku ci fàtte lu mu leen saara ku ci fàtte

Yo, you

Gandam Saalum Gandam Saalum Gandam Saalum Gandam Saalum Gandam Saalum Gandam Saalum yóbbu ay yére yóbbu ay yére yóbbi amale sëgëli jiit gi amiin wàcc nga amiin wàcc nga xandaru daado ci wàllu mbay wàcc nga sama amoon yére oor sama yokko sama yeeroo billaahi solo leen ko yéen a ma sagal yéen a ma teral maa leen bëgg maa leen bëgg yéen a ma teral yéen a ma sagal amee fukki at ak juróom benn ne ko sëñ Babacar woo ne ko juróom benn amiin araftu زربا وغربا وغربا مني ودرب غزول في سائل الورى إذا سابق الأبواب يوما يوما ليلة إذا سابق الأبواب يوما يوما إذا سابق الأبواب يوما يوما إذا سابق الأبواب يوما يوما إذا سابق الأبواب يوما يوما يكون يكون إماما إمام وراء وراء وراء وراء وراء وراء إمام منصور آل منصور وأرسل لي منصور ولا غربا ولا رسول من سائر الورى إذا سبب الأهوام يوما إله لا يكون إماما في الورى والورى والورى يعيش الأمة والورى يعيش الأمة محمد منصور خير وبداية الله منصور الله محمد محمد محمد Dana war. Ah, nee na.